jàng nañ fi li nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, maanaam li doomu aadama doon jàng ci ñetti at ñun jàng nañ ko ci ñaar fukki fan te am na ñu yaqin bi nga xamante ni euh, képp ku nu mënti jox installation wala nga woonu maintenance wala nga woonu si dimensionnement si installation kër wala pompe solaire walla leneen li nga xamante ni jumtukaay la bu jëm ci wàllum énergie solaire euh, yaakaar naa ni am nañu taxawaay bi nga xamante ni mën nañ la ko defal ba sa xol sedd si côté boobu daal. ubbil nañ ñu bunt bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon fëgg boobu ba léegi mais yàlla mi ngi koy doog am dogal te comme que yàlla dogal na ko ñun tamit dañ ciy profité wane si suñu capacité ak li nga xamante ni sunu formateur yi jàngal nañ ko euh, lépp li nga xamanteni lu jëm la ci walum côté bobu duñ ci am jeexi jaaxa dal président de la république dafa jël ben chantier mu né accès universel boo wax nak moy ku né la ngay soxla fekk la ca fa ko soxla ñu jël ci ben volet énergie ñu gis ni président amna lu mu ci teg muy euh, cinquante mille lampadaires mu tass ko ci Sénégal mais cinquante mille lampadaires yooyu tay bu paane euh, presque amul sénégalais bu ñu jàngal pour nga défal ko. ñu ne léegi dinañ former ndaw ñi pour ñu mën a réparer lampadaires yooyu mais pour lan ñu tànn Mekhe président dafa am benn lu mu tuddee toolu maanaam énergie solaire maanaam ñu tuddee ko ay centrale ñu ne centrale yooyu ñaar daf ci nekk ci Kajoor fi ñu nekk muy Sëncu mexe ak Meewaan ñu ne nañu tàggat ndaw ñi pour ñu am liggéey mais mu nekk liggéey bi nga xamante ne fa mu fa ñu nekk lañ koy soxlaa beneen bi nag mooy dëkk dëkkaan yi maanaam Euh, collectivité locale yi ak mairie yi bëgg nañu dem ci ñoom signé ñoom ndax dafa am lu ñu jàngat rek dañu gis ni cinquante mille lampadaires yooyu bu fekkee dañu former benn xale ni ko yow pour ngay yow yaay euh, réparer di saytu benn lampadaire day nekk fukki junni euh, xëy yi nga xamante ni day am donc ñu jàpp ni loolu lu ñu war a saytu la te liggéey nag leen rek la mooy fexe ba nit ñi di soxla la nga man di la ko sant nga di ko fay di ci am lu ci ruus looloo ñu taxaw na jóg. souvent collectivité territoriale day wax man warumaa joxe liggéey. ah kay parce que li nekk ci énergie yëpp ñu soxla ko foofu maanaam ci jumtukaay bu ñu tàggatee ndaw ñi ndaw ñooñu formé wu en GIE ci dëkk dëkkaan yi war nañu mën a fexe ànd ak maire yi ànd ak conseil départementaux yi daal di ci jëlee dara li nga xamante ni day nekk xëy pour ñoom nekk xëy nekk également bunt pour yokkute mais fexe ba xale yi. ñu tàqale leen nag lëjle tàqale leen nag taxawaalu te loolu nag mooy ñu jox leen métier jàngal leen ko ba ñu man te jàpp nañu énergie solaire bi lu ci am solo la maanaam énergie renouvelable ak énergie durable